combat baa ngi noonu dox ci diggante Sénégal ak Gambie mbokku Gambie yi ñoo def euh, ceinture bleu Sénégal ceinture rouge ñu ngi noonu première compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu jàppante ne arbitre bi àtte na buux na ko nee leen ci digg géew bi Sénégal Gambie ndaysaan ñu ngi noonu arbitre bi sifflé waat na Sénégal ceinture rouge bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan 66 kilo ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleu xale yaa ngi noonu jàppante nañ ndaysaan mu ngi koy bëgg a bët bañ na ndaysaan avertissement benn bëre ndeysaan xale yaa ngi noonu Moustapha saan ñu ngay jàppante rouge Sénégal bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaari xale yi ndenge ñeente nañ wër na ko ndomba a sifle walla déet loxo bee simmeeku wala déet am na lu muy jàmbat daa mel ni joueur gàmbi bi dafa blessé dem na si sifflé waat na Sénégal Moussa Gambie ceinture bleu ñu ngi waat noonu premier combat baa ci compétition bi ñu ngi jàpp Sénégal jàpp na ndaysaan Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na ndaysaan jàpp na Sénégal Gambie ndeysaan dañoo mën a bëre nag mbëru Gambien yi dañoo mën bëre jàpp na ko wër na ko ndomba senegal wër na ndomba daan senegal Sénégal daan na senegal daan na Sénégal daan na ñu ngi waat noonu. Ndeysaan 86 kilos senegal soixante-seize kilos Sénégal rouge Gambie bleu ma nga noonu Sénégal Gambie faqat na ko faqat na ko faqan na ko daan na ko Sénégal daan na daan na ko ndeysaan mbir ñaax Sénégal laa ilaaha illallaah eh allez les lions du Sénégal lii moom far far fos far far fos ndeysaan far far fos eh, ndaysaan xale yaa ngi noonu avertissement 2 pour Gambie ah ñu ngi noonu arbitre bi sifflé na ndaysaan Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture ndaysaan jaar grand ndaysaan rouge Gambie bleu ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ba tey ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Sénégal jël na tànk ba Sénégal jël na tànk ba mbaadu daa nar a ñàkk bañ na xale ba bañ na mbëru gàmbi yi dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ mbëru Gambie yi dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ dañoo mën a bëre ay ndaanaan lañ. Ndeysaan Sénégal Gambie. arbitre bi sifflé waat na. temps ba jeex na. arbitre bi ngi waaj a sifflé. nee nañ pare nañ. Baldé Gambie ceinture bleue Sénégal rouge ndaysaan bi mooy troisième combat ci compétition bi par équipe la ñu toll ñaari ndam ci kaw Gambie Gambie amagul benn ndam bi mooy troisième combat bi ñu xool ba xam Sénégal day gagné ndaysaan wala déet ñu ngi noonu ndaysaan joueur yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu na noonu di jàpp ndenge ñente nañ ku ne di déglu sa moroom diggante Sénégal ak Gambie ndeysaan may nuyu Gambia yëpp wala suñu mbokk Gambien yëpp ak Gambien yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar la yoo xamante ne jël na tànk ba bañ na Sénégal Gambie ndeysaan Sénégal Gambie ñu ngi noonu compétition bi ñu nga noonu nañu leen avertissement disqualifié nañ ko ndaysaan ndaysaan Sénégal jël na arbitre bi ngi waaj a sifflé ba tey cent kilos bi Gambie ñu ngi ci cent kilos bi ndaysaan ordinateur Sénégal Gambie ceinture bleu Sénégal rouge ñaari xale yaa ngi noonu di léewtoo Sénégal ak Gambie mbokki yi Sénégal am na ñaar ñett ndam ci kaw Gambie ndaysaan 100 kilos baa ngi nii ñu gën ko xam ci ordinateur moo ngemboo ngemb Lagos bi ceinture rouge Gambie ngemboo ngembu Lagos bi ceinture bleue ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan neuvième édition ndaysaan tournoi de lutte ndaysaan ñu ngi noonu ñaari xale yi ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar jàppante waat nañ dara xewagul ordinateur ndaysaan Sénégal Gambie bleu ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan arbitre bi atte na kaay leen ci diggi géew bi mu leer ndeysaan ñu invité leen suñu réew dóor leen dóor yi métti bàyyi leen ngeen ñibbi <laughs> loolu ay teranga Sénégal teranga bu Gambie ak mo ndeysaan ñu ngi noonu jàpp nañ ko jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ndeysaan ordinateur jàpp na ndeysaan jàpp na bi sifle waat na Sénégal Modou Faye ci kawam na noonu jàpp na jàpp na ndeysaan ñu ngi noonu Sénégal gagné na ndeysaan arbitre bi sifflé na saan Sénégal ceinture ñaari mbër yi jàpp nañu mbokk am ñaar booy amet bi baax na ko mu def na ko booy fay daan na ndaysaan Sénégal ndaysaan Sénégal am jël ko ar ndey ko o oh. ndaysaan kër siraag ndaysaan Mouhamed Bousso alias Boy Faye daan na ndaysaan combat ci compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu